dama am mbégte bu parce que bu ngeen correct, rek temps est passé jaar nañ fii ci euh, commune Diarère biñ fi jaaree aussi dañoo ñëwoon ci ay activités yoo xam ne ay association ñoo ko doon def ñii di récompenser ay élèves di leen jox ay fourragires ñii def ay journée culturelle ñii également di def activité yoo xam ne da dañ ko doon def pour au moins dimbale jigéen yi mooy autonomisation des femmes de leen may ay moulin jóge foofu aussi dem ci activité sportive bu ñu fi jaaree ñu ne leen ah ñun am na loo xam ne nam nañ ko mooy def ay consultation gratuite mais yoo xam ne bulet lay doon ci suñu biir commune bulet dañ mobiliser au minimum une trentaine de médecins infirmiers ay ICP waa région médicale ay ay ay chirurgien dentiste nous sommes ñu pendant trois jours Nous avons loolu lu Nous la ñu ñëw Bicol nous vraiment toute la journée consulter de traiter de sensibiliser aussi sur petit côté prévention Nous ñu war dem jaareex li fi def après dimanche toute la journée aussi nous ah, ñu mën à unité mobile mais nous avons aussi poste euh, poste de santé Bicol te def ni effectivement mom la ñu def jaareex def ko joyin loolu nek lu am solo mais balaa ñu ñëw fii ci poste santé bi amna fuñu fu fuñu njëkkee nak moy côté éducation am collège bo xamné collège bi Bicol la léegi sax bëgg a lycée parce que am nañ seconde am nañ première ñoñu aussi buñ ko commencé ba légui lu ci mëna def rek dama koy def parce que yaakaar naa ah li rek la am te éducation nak dafa am solo c'est pas pour rien que le président de la République Macky Sall mu def plan Sénégal émergent mais deuxième axe bi rek promotion du capital humain mooy nit en quelque sorte nañu mën a def ba tagat nit comme la li ñu mën nam pour ñu mën ko am ci biir réew mi maanaam réew mi développé mais ñu mëna am ay sénégalais yo xamné ay sénégalaises yo xamné ne dinañ mën tagat ci loo wut ci compétence lu mu fin fin fin lu mu mag màgg ak lu muy rëy rëy nga mëna ko fekk ci sénégalais té lool nak machallah a ah, am nañ intelligence bobu bo waxee Sénégal vraiment on n'est pas dépourvu de ressources humaines de qualité mais à mon ko mais ñu gën leen aussi parce que 2035 du pour ñun mais pour xale yi la donc loolu aussi ñu def ko fii ci Bicol ñu indi fii ay récompenses yu am solo joxe nañ fi presque six ordinateurs yoo xam ne xale yi ñoo ko moom ak proviseurs yi ak dispositifs yoo xam ne mettre ko en place gis fi aussi ay xale yoo xam ne ah am nañ jom am nañ ful am nañ fayda parce que am 17 virgule 16 26 ah loolu du caaxaan moo ko ko jox ah am presque ay une centaine d'élèves élèves yoo on les a récompensés ce matin mais am na une catégorie élèves yoo xam j'ai tenu à ce que ñu boole leen ci fête bi parce que xale élèves yoo xam effectivement ni laaruñu mais seen parents yi seen loxo jotul gannaaw te ñooñu boo leen identifier au début rek duñu suivre parce que souvent doo am kay souvent ñu ne la amoo règle amoo bic xale yi ñu toog foofu di la di la di la kokkali ah da ngay bëgg a toog kër ga ñëwati école wala parents du mën a jënd euh, inscrire wala du mën a école euh, comment il s'appelle encore mooy euh, mooy fourniture scolaire yi da nga mën a toog ñooñu aussi may wax proviseur bi di ko gërëm bu baax a baax parce que vraiment témoignage yi mu wax tey ak lu mu organiser loolu ci biir école bi loo xam ne dañ ko war a mën a dupliquer sax ci école yi nekk ci biir commune bi mais au-delà du département bi ak ci région bi ñooñu aussi dañuy def pour élèves méritants yi pour susciter émulation bi nous avons les mêmes cadeaux pour au moins les parents pour ñu les enfants puissent aller des ci biir également def nañ ko. fait. aussi fait nañ choses, nous avons fait des choses, nous avons fait pour nous a euh, dañu pour au moins nous machine machine aussi exina. nous avons équipe euh, maye wala suba di wane le président de la république xaar ci ñun parce que bu ñu tanee nag ci ay millions de sénégalais mu teg ñu ci wétam yaakaar lu mëna a ci réew mi waruñ tok rek di wax dañu ko war jëf dañu war a dem ci base bi ci population di jëf ni mom parce que président boko gisé rek boko xamé xamé ko wax jëf lañ ko xamé man nak ci école am laa bëgg a parce que bu mo duggé politique ba légui c'est vrai depuis PDS ba légui xelam la mom moo ma tàggat ci lu bari donc ma dëkk ak mom ci bir Fatick yakarna kuy meuna a euh lu mu lu mu lu muy jàngale ci ku melni man la wara la wara a donc loolu mo taxone dal vraiment ñu ñëw fi tay de remercier initiateur bi di monsieur monsieur le ministre muy Sarr donc mu nek ko xamné comme ni ko waxé légui suñu way la suñu xarit la et puis on a cheminé ensemble depuis 16 ans.

des actions de développement et des initiatives pour dimbali ay nit surtout de comme aussi c'est important Nous, ko solo nit boy commencer ce fi nga Chères autorités administratives et académiques, M. Moïse Djardjegan Sar n'en est pas à sa première action à l'endroit du SEM de Bicol. En effet, constant dans son rôle de mécène et d'acteur de développement pour son terroir, il s'est toujours employé à appuyer notre établissement en matière d'équipement et d'appui au gouvernement scolaire et à contribuer au suivi de ces dossiers auprès de la hiérarchie et de nos partenaires, notamment à l'occasion de notre demande d'électrification du collège et de notre demande d'ouverture de classes de seconde pour lequel il a joué un rôle déterminant. Avec ce geste d'aujourd'hui, M. Moïse Sar confirme donc qu'il est un véritable partenaire sur lequel le collège et futur lycée de Bicol pour compter pour enrichir le carnet d'adresses de partenaires très fournis de notre établissement, mais aussi pour s'illustrer en exemple pour la jeune génération.